جعل فيه في المنطقة أن يسرى ما سرى معه بداية مكبيه فإن عصر يوم يوم عقل وصل ما هي قد فجد جاء فترة كما سكر الله تبارك وتعالى بكل ما من خير صحيح واطلبوا من الله تبارك وتعالى خير حفظه تبارك وتعالى يهدوا إلى خيركم غير رحمته فيه تبارك وتعالى من جميع السلام فإنه يغفر لكم ويكفر إلى خيركم سبحانه ويكف إلى خيركم سبحانه وتوجه السنة والإجماع فإن الله تبارك وتعالى يكفر من من أبو فيه الإجماع بجاه قصرات المؤمن يسلم الظاهر وبآله وسلم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله الله الحمد لله يسلم التقصير ولم يكن شريك في الملك ولم يكن له من الصلح سبحان ربك رب الشرك والشكر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xam ne na yow yow yow mi bis bii bisu mbégte la ñeel jullit yépp ñeel képp ku di jullit kuy rafetal kuy sàkku texe noor cee sant yàlla bu ndax nekk na te yàlla tax li leen ci tere jëf lépp lu safaanoo ak jub rawaate na jëm sunuy jaamu ak sunuy aada yi ñuy dund ndax ne lu ànd ak jub rek moo ne amaan njëriñ tey amal na ko ëllëg ne texe ci jaam wi lu ko yàlla namee ci moom dañ koy dimbali ba du geestu dul boromam safaan ba noonu ne mi ngi dénk jaam yi ñu tappoo sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu nu lu nu andil ci jàpp ca loola lépp loo xam ne lii gis nañu safaan la ku njub nu woon gannaaw loola ne képp koo xam ne sa moy jëm ci aw yu ak ujub baye ba safa amba ko ko taxa ñaan nako nako nona ko jëm ci safa amba mo met na seen safa amba kon ñu ngi ci denk te yalla tax euh nga xane mo iblis na sax de taqwa loolu yi mu bëgg ci noonu muy li ak jub gi lay may tax ak tey ak ëllëg ndax ne buñ ko defut ah rek a fa sës gannaaw njub moom coono rek mi ngi nu ciy tere ñu bàyyi lépp loo xam ne gis nañ ne du ak jub ndax ne jub rek mooy moo lay may ngërëmal borom bi moo lay dimbale tey mooy dimbale ëllëg ne lii yàgg nga ci sàkku itam bi te yaakaar ne bu ñu ko bëggee nekkul fenn lu ma ci ragal yàlla kon man ragal yàlla waaw ne li yëkkati ko ba tey di tedd nga ci amal jaam bi njëriñ li ëllëg ëllëg nekkul fenn ci sumay borom sunu sunu borom waaye ne ku fa bàyyi kat euh, la koy maye te mooy taxaw moom nga xam ne sabaan ba lay rajo yàlla da koy bàyyi ak boppam ak bànneexam seytaane daal di ko yóbbu ko fu ko neex ne képp koo xam na nga jublu ci moom ànd ak wasila te mooy ànd ak wala nga ànd ak e, Sëriñ Tuubaa te moo te benn lañu wala nga ànd ak dina Sëriñ Tuubaa boo sa jëwriñ koor kooka nee na mu jëm àggin wu ndax yoon boo ko xamut boo àndee ko xam yoon rek ak kon nag mi ngi leen di dénk yéen jaami yàlla yi ngeen ragal yàlla nga xam ne rak képp koo nag mooy booy wax nga wax yiw booy jëf nga jëfu yiw ndax nee na jëlee na ci yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne képp ku xeetam bi njëkk mu muy daje boromam sun borom dana ko jagleel am ram wala moom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 te mooy lii bare njaboot gi di julli ci yonent bi nga xam ne moo génne ci lëndëm lëndëm bu leer akub bokkaare akub naafeq akub ñàkk di sant di topp yonent bi ko taal bii ñu ko topp ci rafetal ci mboolem gox yi nag nga xam ne tey gis la bu am barke bu la yàlla. defal barke ci defal ko jullit ñi ñu am ci doon bokk la kenn bu agsee eh, nu war ci yow sant yàlla cant ko biir ñu xam leen bisub lekk la bisub naan la bisub goreel la waaw te buñ nee goreel mooy libéré jaboot bi hmm, dox ci seeni bëgg-bëgg ñu def ko nag ci ngëneelal euh, sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam bi yàlla may mu benn bunt ku ci sant yàlla eh, yàlla dana ko may lépp lu mu tànne kon nan ci sant yàlla sàkku ci yiwam noonu ne bu ñu defee loolu yàlla dana nu soppil naqari ay neex lu ci tuub bu sell ci mboole mooy yun ma mooy buñ ko defee yàlla dana nu jéggal fegal nu gaxee di gris nanu ci nanu ci ci sunu borom ci téere bi di ko jàng di xeeñ ci sunnaam si di ko jëfe di topp sunuy kilifa di wéy ci seen digal munu ko defee yàlla dunu fegalu lépp lu muy jaxase ci suñuy doxin wala muy yàqal ci sunu kanam yal na yàlla dimbali ci ndimbal sëriñ bi

sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi ngi leen di mi ngi leen di wax di am lu yoon ci njaboot yëpp ak ci taalibe yëpp ak ci bopp yi di leen xamal ne bis bii li ci dénkaane fii rek mooy li li li mooy li mat di dénkaane kon loolu nañ ci sax te dëggal ko la ca topp mooy daara ji nu nekk nu dëggal doxinu daara ji tàmbalee ko ci jàkka ji ak daaray kaamil ji ak daaray liggéey yi ak xam-xam ji waaw daara alxuraan yi mooy liggéey bi sëriñ bi bàyyi mooy daaray alxuraan ji daaray xam-xam ji jàkka ji daaray tarbiyee ji loolu mooy ndigal na ci taxaw di gën koo fonk te nekk benn nag taalibey kër gi nee na mi ngi sàkku ci yéen ngeen nekk benn tey seen biir tey liggéey di sëñ Tuubaa dong mu tax ku leen liggéey ngir sëñ Cheikh ku leen liggéey ngir am liggéey lu waay ñàkk yaa ko moom képp ku ne na taalibe naa ba ba ba noppi nag jël sa yittey bopp teg ci sa kanam doog caa teg bi la nga jaayante woon yaa ngi juum loolu du yoon wa da ngay jiital yittee sëriñ bi teg sa yitte boo ko defee sa yitte dara du la ca naqari ndax da fekk sëñ bi wutu la sa yitte kon nan xammee loolu bu baax a baax a baax xam ne sëñ bi baax rek fi nekk képp ku ci jaayante boo fàttewul la nga waxoon seytaane téyewul ci loxo war nga boo jéego boo jéggi fàttali ko loolee nga waxoon am xam la koy sellal nga dox jëm ci mooy soññee bi yëpp soo ci soññee bi li ci des noonu dëkkandoo yi nan gën a jàppante nan gën a nekk benn nanu dimbalante nanuy nemmi konte lu ci waay yëg ci lu lu lu gaar moroom na jàpp ne moom la gaar mu taxaw ko ko war a taxawee te bàyyi gannaawalante gi ak kenn ku na mën a muñ sa moroom ndax neexu jamono jamono bu neexee kenn ku ne da ngay defee rek Euh, sox gannaaw soxlaa loolu kenn dara kon man nga man nga sa bopp man ngaa jàpp sa jàmbur waaye loolu du yoonu ku nu yàlla boole du loolu sëñ Tuubaa li bëgg taalibe bi noonu ñun ñëpp suñu kër yi kenn kër lañ ko war a def ñun ñëpp suñu benn pexe lañ ko war a def ñun ñëpp suñu jëf benn jëf lañ ko war a def kon loolu mooy naqane li mooy mooy taaru euh, kër gi mooy taaru doxinu murit loolu yàlla na si yàlla dimbali yàlla na ci yàlla saxal yàlla na ko yàlla nangul mm-hmm. waaw na ngi yàlla baax di sant suñu borom a defal ko wér di ñaanal sëñ Abdoulaye mi topp ci moom suñu borom a defal ko ak wér fii moo fi nu ñaanal di nu jàngal xutba bi mu neex nu lool tey jii maa nga ca fàllu euh, yaramu ko sutaate ñu ko ñaanal ñëpp mu ñibbi si jàmm te ànd ak wér ci barke sëñ Touba ñaanal sëñ Fallou ak soxna May moom it gën naa dafa seeti woon sëñ Abdoulaye ak wér di dàpp ko nañ ko ñaanal moom it mu ñibbi si boo xam ne mu war ko ku fi euh, ak wér di dàpp sun borom ba ñoo ngi di bàq si Touba mu saafara ko. Mm-hmm. ci daraja Ramadan ak ci daraja bis bi. lépp mm-hmm. ku fi am ay tolof tolof yeneen itam ay jafe-jafe yàlla na ko yàlla def tam mm-hmm. ay yomb yomb ci bàq si Touba. ñu fàttali leen nag ne koor mi euh, waxtoom sax mi ngi jàll waaye nag lu baax moom du jàll lépp koo xam ne farlu woon nga def ko ni la ko waxee woon bii ba biñ daataan julli si dem gën a gën ku ko ci defut itam euh, lu baax moom du doy génnee da nga a ku seedal yàlla mi joxe tuyaaba mën na laa jox tuyaaba ñu ngi sant sëriñ bu baax di sant njaboot bu baax euh, di leen loolee soññi ñu gën a rek góorgóorlu ak góorgóor rek mooy tax a góor asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh 来，什么？来。